fekk ñi la jàngal métier bi toog te war a wax dafay diis trop parce que c'est man dama teel a dugg ci wàllu rajo ak télévision xëy na bi may wax rajo boobu samay tànk su ma toogee ci chaise du laal suuf 1978 laa njëkk a wax rajo. ba maa ngi nekk xale bu ndaw <laughs> donc euh, may xale bu ndaw euh, dëkk Malika tuddoo Malika boobu suñuy tudd ay Malika ak yooyu tàggee tàggee rek lañ doon tuddee dëkk yooyu ñii toog Mamadou baal ak DG Mactar ci ñi ma yar ci télévision forme ma ci lañu bokk ngeen baal ma parce que nit ku nekk dafa am bés bu ñu lay doyee xam ngeen ne man mbiru kabloo kuy jóg di wax di ko xeex ba egsi ci man di nga di nga teeral ñi ma xam ñépp xam nañ loolu te heureusement yàlla li muy def mu fekk fii kilifa yi nga xam ne ñoo yore nag signature yeeg dogal yi mon frère Ousseynou xam ne dañu jaar aussi fu baree bari texte yi ngeen gis ci secteur bi yëpp code de la presse euh, kii euh, le CNN le kii numé numérique stratégie numérique bu bu Sénégal ñoo ko bindandoo euh, ak Matar Sall bi toog ak Pape Siré si c'est naa ñëwaat ci Pape Siré tout à l'heure naa ñëw ci Pape la mu def ci loo xam ne pour yéen la te yëgu leen ko parce que man dama fekkee depuis premier jour xeex xare Badar cablo yi balaa maa ñëw ci loolu xam ngeen ne man waxu cablo yi moom dama duma duma ragal wax bi te heureusement honorable Amadou baax mi ngi fi vraiment yàlla Alioune Karam Camara sant leen yàlla bu baax a baax parce que bëgg naa man message yi may wax honorable yóbbaale ko wax dëgg yàlla mais baal ak euh, DG Mactar ñoom ñoo ma yar ci télévision gis na télévision ba ma ñibbisee États-Unis émission yi ma njëkk a def Mamadou Baal mii toog doon directeur télévision su may def émission day ñëw taxaw ci régie bi su ma defee émission boo xam ne dañu xalaat ne que jaarul yoon dañuy jël bande bi ne ko sànni ko ci poubelle bi daf ma jàngal télévision baax daf ma jàngal audiovisuel kii dama ko jëlale tax silaa sama mag la ça plus de quarante ans bañ ko nommé DG daf ma woo ñu Genève yaa ngi rab loolu fàtte nga ko mu jël organigramme am benn une grande vision pour changer l'audiovisuel au Sénégal parce que c'est l'un de nos meilleurs experts spécialistes de l'audiovisuel en Afrique et dans le monde Matar Sylla bi malheureusement dañu nekk ci réew boo xam ne réew boo xam ne day suul ndaanaan day suul doomam Matar Sylla c'est dommage te dommage parce que dama ko xam dama màgg ci wetam mu nekk DG RTS ne ma aadama xoolal organigramme bi direction yi fu la neex nga def sa nga tàbb sa bopp ma ne ko déedéet ma ne ko DG yow sama mag nga suñu la dénkee direction générale man ku ma xam-xam ne musuma wut poste ci àddina waaw musuma ko xëccoo duma ko mësa xëccoo moo tax amuñu dara comme ni suñu mbokk laayeen ñi di wax xamuñu duñu xëccu mais dama leen di wax ne kii ku doy waar a ngi nii kuy wut expert ku ne ci wàllu audiovisuel soo ñëwee ci Matar nga taxaw seen une pour le Sénégal malheureusement honorable euh, nous avons des systèmes pas un système des systèmes qui ne sont pas reconnaissants c'est dommage pour des questions politiques ñu écarte nit fekk moom yàlla def ko may xam-xam parce que ba muy ba muy quitté RTS nga baal ma DG parce que dama fekkee ay nit temps boobu ministre yi temps Ablaye Wade xam nga ñu doon wax tele tukki Touba Wade la woon ku nekk bëgg chaque jour nga feeñ journal télévisé looy sooy mayee big sax nga woo RTS pour ñu defal la couverture Ousseynou boobu yaa nga fa. du dëgg yaa ngi fàttaliku Matar ne amul ministre amul DG RTS journaliste yi je vous laisse liberté man temps maa ngi def émission télescopie opposant yañ doon bañ ñu dugg RTS Matar mi moo tax Baal était directeur de programme à l'époque Abdou Latif Coulibaly temps boobu moo gënoon virulent contre Ablaye Wade je me rappelle bi muy ñëw émission yi couloir yi gars yi dañ doon sëpp di xool ci suuf bi mu ñëw pour pour dem ci studio bi parce que kenn mësuloon xalaat ni opposant dinañ ko mës a may temps d'antenne ci émission contradictoire de débat mais Matar loola ko sànq nit ñi dem boole kook Ablaye Wade donc noonu la ñu perdre Matar Sylla et c'est pas juste c'est pas juste donc ngeen baal ma injustice yàgg na yàgg na ci injustice boobu nag laay dooree pour wax li ma naroon wax pour câblo yi yéen a ngi fàttaliku ku fàttaliku Douta Seck le 5 mai 2000 2011 lu xewoon Douta Seck le 5 mai 2011 exactement mooy rassemblement ba ngeen defoon du ta sec temps boobu maître El Hadj Diouf ngeen jëloon comme avocat yéen a ngi koy fàttaliku ngeen def mobilisation boo xam ne dafa xam naa ak renseignements généraux yi ak information yi àllune sa a secoué le gouvernement yéen a ngi fàttaliku loolu ça a été honorable le tournant qui a changé la trajectoire des câbles distributeurs fekk man maa ngi woon ministère de la communication de 2003 à 2012 2011 da fekk ñu nommé ma chef division audiovisuelle ak TIC fekk aussi Moustapha Guirassy ñëw nekk ministre c'était mon quatrième ministre à l'époque ñu dénk ma lépp luy convention demande de fréquence parce que division audiovisuelle bi mooy mooy traité dossier bi yéegal ko ci kilifa yi ñu mën ko valider wala ñu bañ ko mën bañ ko mën a valider ci noonu à partir de Douta Seck boobu la Ablaye Wade woo plus tard Moustapha yi benn conseil de ministre mu jeex mu téye mu gis grâce yi moo tax il faut ngeen féliciter grâce il faut ngeen féliciter mu ne Moustapha grâce yi dama bëgg xale yi yi ma gis il faut que ngeen wutal leen autorisation wutal leen këyit comme ça au moins ñu dimbali leen parce que ils sont ils sont il faut de l'auto-emploi maanaam seen propre employeur mais ils emploient des d'autres jeunes comme eux Ablaye Wade moo wax ministre bi jógee fa ñëw convoqué ñu nañu le président a demande qu'on travaille sur une convention pour les jeunes câble distributeurs looloo indi mbiru convention bi yàlla def effectivement comme man maa doon traité loolu base da ngay def kii de base bi ñu xam ne bu baax liggéey boobu ci lañu ñu commencé def li nga xam ne moom moo génn pour seen convention bi Moustapha Guirassy wóolu ma ne ma aadama lii yow yaa koy dama koy bàyyi sa loxo ci laa ñu koy bind ak ay juriste suñu bindee yónnee juriste yi xool corrigé ñu delloo si waat en cabinet man ma yéegaat ñu def réunion ba ngeen ba ñu recevoir waa Sortec yéen a ngi rappelé wu à Sortec moo amoon ak Péritel bu Alioune Ndiaye ñaari demande yooyu lañu amoon sama bureau sama kaw bureau la nekk Alioune Ndiaye fa laa ko xamee ak waa Sortec yi doon ñëw ministère donc ñu reyante ba convention ba canal yëg ne ministère bi ñu ngi wutal câbleau yi convention Pape Siré canal s'est opposé à pour l'histoire honorable parce que canal dafa mës a am doole ci senegal de ni ñu ni ñu tubaab noote woon sunu maam noonu lañu kanaal canal yàgg noote léegi waaw léegi non dama bëgg dama bëgg honorable nga may ma nopp tuuti je te fais la jeunesse nga am ay éléments gis nga canal parle bi biais de ñoom Diagne Ndiaye qui était puissant qui est toujours puissant d'ailleurs yàlla moo xam mais ñu ne ñu ñëw teg pression ci Moustapha Guirassy pour que ñun boobu presque convention bi juriste yi kii nañ ko ba ñu ba ñu am texte de base bi ba ba am première version seen convention yi canal ñëw seet si ministre bi avec une forte délégation pour mettre la pression mais Guirassy moo tax man na leen yéen amal ngeen lu bari Guirassy Guirassy a refusé non seulement dafa refusé ba caag mu ne ma mais Adama xam nañu xool comme convention canal tamit mu ngi doon jeex génne ko j'ai sorti la convention de canal depuis 91 mu ne nañ ko ci defal note dama gis ci benn disposition convention canal man nag il faut ñu kepp leen ci lii dafa am benn article bu bu wax ne express xam nga ko Matar xam ngeen kii boobu ko article boobu que canal dañu waroon lu ñu am ci at bi ci chiffre d'affaires dañu war a delloo Sénégal les 3 pour cent xaw ma pour cent maanaam su ñu amee 20 milliards ci at bi. dañu war a vingt milliards ñu jël ci vingt milliards yi trois pour cent ah, muy six cent millions wala huit cent millions ñu supporter ko pour mu am une production locale audiovisuelle kon lim leen 1991 ba 2011 canal musul fay un rond au trésor Sénégal ma ne ministre bi ma ne ministre bi ak. Pape Atou bi ma bi ma bi ma defee note bi ngeen gërëmaale aussi Pape Atou Pape Atou Pape wallaay ñu def une réunion ñu ne naa def lettre pour ñu dénoncer la convention de Canal et c'était courageux parce que xaru la woon kenn ñemewul woon attaqué lu lu jaaña jaay ak tubaab yi moom giraas yi moo ma ne Adama dafa lettre bi def lettre de dénonciation c'est-à-dire l'État du Sénégal dénonce le contrat avec Canal 2011. monsieur li nga wax mën nga ci yokk aussi tamit versé wu ñu trésorerie Sénégal mais di jël suñu chaine nationale di ko exploité. war naa ci ñëw damay nettali rek histoire bi tuuti pour euh, surtout. honorable ak gars yi ñu xam aussi câble yi fu ñu jóge xeex bi fu mu jóge donc euh, ñu jox leen kii bi convention bi malgré bi ñu leen joxe convention bi gars yi ne ministère bi waruñu jox câble yi convention parce que des pirates donc câble yi la mooy premier point bi fi ñu jógee dafa sori. parce que waxu Ablaye Wade te Ablaye Wade aussi amal ngeen ko njukkal Ablaye Wade amal ngeen ko njukkal honnêtement man xam nga yoruma benn carte benn parti mais Ablaye Wade vraiment am amal ngeen ko njukkal parce que def ne ministre bi Guirassy mën na leen ko certifier argument moo doon c'est des jeunes sénégalais ki sa battent il faut leur donner une autorisation et on m'a dit qu'ils emploient d'autres jeunes te sama kàllaama foofu lay ñëw parce que honorable euh, kii wax na ko sànq def naa directeur Ousseynou les câbleaux à peu près y a un minimum de en derrière les 32 GIE ak waa sorte ki ak Péritel y au moins mille doomu aadama ñi 15000 au moins qui sont des patrons dans l'activité ci 15000 yooyu. ku nekk di nga liggéeyloo ñaari nit gën caa néew wala ñetti nit ñenn yi sax voilà sax mu ngi noonu donc honorable sur l'emploi sur l'employabilité loolu mooy premier indicateur bi ils sont aujourd'hui ci man ci sama calcul sama calcul parce que man je je suis les chiffres tout le temps yéen ngi toll au minimum entre cent cent mille et cent vingt cinq mille personnes yuy tedd ci mbiru câble euh, euh, waaw mais mais nañ ma wax au Sénégal benn secteur d'activité bu ay jeunes sénégalais yore qui sont dans le privé di reyante di di teddal à près cent vingt cinq mille xale amul fenn ci àddina amul amul honorable ce modèle économique-là n'existe pas dans, dans les autres secteurs au Sénégal un secteur géré par des jeunes volontaires ñuy leb di dajale def bout de ficelle ba taxawal seen affaire même si y des y des efforts à faire sur la question légale de la légalité de, de certaines choses mais nature seen liggéey moo amul fen man dem naa ba Abidjan fu ne dem naa fa pour expliquer le modèle des câbles distributeurs sénégalais. C'est un, un modèle unique. Donc, on n'a jamais compris pourquoi l'État n'a pas compris l'enjeu de l'emploi de ces jeunes-là. Je ma comprendre. Toujours d'ailleurs, à nous. Je autorité. Les dañuy tipsé wala lu leen jot mais pourquoi ils ne comprennent pas ça akbar ginnaaw loolu je pense que ce qui important mooy que d'abord Kablo bu nekk fii mën nga ma mën nga ma firndeel loolu ci quartier yi Kablo distributeur bi mooy kan mooy kan cest à mu mu ngoog exactement mais en termes non c'est très important la valeur ajouté sociale et communautaire du câble dans un quartier populaire lu am kë waa kër yi réseau Cheikh Sène ñëw naa sa kër Pikine toog fa ñaata nit ñoo ma fekk. ku nekk ak problème am pour nga ñëw régler ko ko këram yow yaay ku am problème technique <laughs> attends léegi. léegi. baal leen ma léegi dem parce waxtu bi bañ ñu xoj. kaablo euh, bu nekk yéen ñi ñëpp nekk ci salle bi laay wax ku nekk chaque jour benn waa kër borom kër wala kenn waaxu dugub si la ñëw ne la ñëwal réparer ma dara ñëwal defal ma lii ñëwal régler ma tel problème fekk sax du sa liggéey wala Mamadou ah. voilà mu ngi noonu donc xam nga donc le câble. donc le câble c'est pas juste kenn kuy jël ay câble di dajale non sa fonction et son utilité sociale dafa dépasser cari image caricaturale boobu xale buy sàcc fil di takkale fil ku ko xalaat wala ku koy wane ci télévision yi ci ay sport tu n'as rien compris tu n'as absolument rien compris une économie Il y une économie solidaire derrière ça. Sociale derrière ça. Mais au-delà de ça, honorable, il y une fonction, dernière fonction câbleau dans le quartier. Mais le câbleau, c'est sous nos quartiers Mais c'est le premier employeur du quartier. C'est le seul d'ailleurs. Voilà. ah man de Goneg Malika laa nous sommes de la banlieue quartier populaire mais ñun par exemple suñu quartier Seydina c'est le premier employeur c'est le seul d'ailleurs dans le quartier Seydina <laughs> donc euh, mais loolu honorable Amadou moi je vous pose une question comment dans un pays normal qui se dit organisé régalien ak li ngeen soxla wax yépp mais naka la mën a ignorer un écosystème avec cette ce no de valeur économique sociale mais et communautaire en plus le directeur de la communication l'a di d'une façon magnifique mais li ngeen di régler ci problème en termes de de contenu communautaire c'est dommage que amuñu études yi mais tey ku am benn événement nga bëgg ko relayer nga toucher les quartiers les gens au niveau communautaire da nga naan woowal câble yi ñu filmer ko teg ko mais pourquoi nit ñi di accroché wu ci loolu seen question il l'a dit Ousseynou tout à l'heure cette valeur là Alors qu'il y a des chaînes nationales puissantes et tout. Mais pourquoi les gens parfois préfèrent jàllale seen information wala seen contenu seen xew ci câble yi au lieu que dem fay benn sport feneen lu tax mais parce que impact bi ngeen am impact bi ngeen mën a am keneen mënu ko am koo mënti doon et ça c'est très important pour un pays c'est d'autant plus important que honorable Sarr junj na ko tey ñoom seen projet bi s'ils ont des valeurs des contenus ay référentiels yu ñu bëgg a tas la meilleure manière de toucher les communautés c'est de dire mais câble yi ñëw leen wax ñu naka ngeen mën a jàppee ci vulgarisation li ñu projet bi wala référentiel bu ñu bëgg a si on utilise intelligemment les câbleaux wallahi socialement on va toucher le Sénégal mais dans dans sa profondeur parce que le Sénégal des profondeurs ngeen di léegi donc vraiment je pense que utilité bi moom ku xamul câble rek yaa ko xamul mais man mi yàlla may depuis 2010 2009 ba léegi maa ngi cheminer ak leen jaar naa ak yéen nag fu ne ak ci lu ne te bëggoon naa euh, taxaw tuuti ci benn. benn recommandation à du directeur ARTP Pape Siré mi ngi ngeen gis ni mu toog war ngeen ko fonk aussi Pape bi ñuy def di reyante pour yéen def ci jàpp bu baax a baax a baax Pape Siré bi la preuve bi ma àllin woowee temps yële ne dangeen bëgg ñu ànd ARTP ngeen toog ak kilifa ARTP yi pour pour mbiru agrément yi Pape Siré Cissé mii laa woo guddi laa ko woo Pape je parce que man lu may def ak ARTP Pape Siré Cissé mii laay woo xam naa leen ñoom ñëpp mais Pape Siré parce que dañu liggéey ci seen dossier ensemble liggéey ci yeneen dossier ensemble mu teg ma ci yoon ñu organiser réunion boobu ñu àndoon foofu ba léegi sax yéen a yéex waa ARTP moom nee nañu yéen ci yéen la des pour ngeen am agrément yi nga xam ne ñoom non seulement dinañ leen ko jox mais dinañ leen accompagner ba reconnaissance bi war pour ñeneen yi mën a ay CNRA ay ministère bi mën a am quand même confiance parce que il faut ngeen am am agrément instru matériel yi ngeen di utiliser su ngeen amul agrément du sotti. su ngeen demee ministère tamit ministère Ousseynou def naan la bëgg naa leen jàppale mais amu leen agrément ARTP parce que équipement yi ngeen yore da ngeen war a am autorisation pour mën ko jëfandikoo donc kii ku ci jàpp la donc c'est important ngeen ngeen xame ko noonu beneen bi dama xalaat ne que lan la câble yi tey qu'est-ce que les câbles peuvent offrir pour l'emploi des jeunes pour terminer je pense dugg bi mooy waxul naa ko Mamadou boobu nag yow laay def seede du ñoom Alioune du ñoom ñoom Cheikh ak gars yi. yaa ngi fàttaliku Mbaaw. kañ kañ la woon Mbaaw. 18 décembre la woon dégg ah. 2000 2021 wala 2022. 2021 2021. 2021. 2021 2021 est-ce que yaa ngi yéen a ngi fàttaliku la ma leen waxoon mbaaw dama leen ne moo tax Alioune toujours mu rappelé ko Alioune Camara mu ne ma grand pour temps waxoon nga ñu ko de ma ne ci laa dëkk depuis diis ans maa nga leen di wax mais du ngeen ma déglu man ne leen xarala yu bees ñu ngi changé changement bu gaaw boo xam ne ana may ga ma ne ko il faut Abdou. il faut ngeen bàyyi yenn yi nag ñebe xarala yu bees yi waxuma leen woon streaming bi di ñëw ah waxuma leen woon streaming bi ñëw il faut que ngeen ñeme xarala yu bees yi il faut ngeen bett tey état bu bees bi wane ay innovation yoo xam ne tey ñu ngi ci intelligence artificielle directeur Ousseynou wax na ko léegi ñu ngi dem ci weer yi di ñëw pas at mode de consommation bi ñuy consommer programme télé ak rajo dina am benn benn intelligence artificielle buy générer bu lay booleel contenu sport yëpp boole ko ci benn bërëb mu ngi ñëw ci lañ jëm di donc même modèle yi ñu leen di wax ni wutal droit kii canal xam nga kanaal la ngi bàyyi yenn droit yi xamu leen lu tax. ni wóotu ni wóot bu Togo lu tax ñu positionné en ce moment avec un nouveau modèle lu tax affaire bi dafay dëpp c'est-à-dire mais nag li koy dëpp te ñii dul seetlu intelligence artificielle yi décodeur embarqué yi nga xam ne tey ñoo war a génn dans six mois duñu bokk ak décodeur yi génn y un an directeur vous êtes un spécialiste de ça Matar xam ngeen loolu dans dans six mois les prochains décodeurs yi ngay jëndee Chine mille francs nga dem ñu defar la ci puce yoo bëgg ñu embarquer la Pape il ils vont il ils vont être des yoo xam ne par exemple suñ ko modéliser contenu sport yëpp daf koy boole jox la ko ci benn canal parce que intelligence artificielle dafay jéggi lépp lu am ci xarala yu bees yi moom lay jël booleel la ko indil la ko fa lañ jëm mais balaa ñoo agsi foofu li ma xalaat mooy lu tax ma wax leen ko mooy da ngeen war a gëstu il faut que ngeen nangoo def tuuti formation ci affaire yi fu ñu toll ak fu ñu jëm seen jumtukaay yooyu moo tax ñoom may ga nekk exemple parce que suñu suñu ñaxewul woon am équipement yu bees yi avec la fibre créer ay tête de réseau yoo xam ne yu intelligent la tey Dakar do ak ñeneen yi du ngeen am ay fibre il a fallu que ay ay câble ñenn ci yéen ñeme dem ci fibre optique bi pour wane que c'est possible léegi il faut aller au-delà de la fibre mais loolu dinañ ko waxtaanee xëy na ci beneen ak les spécialistes beneen yoon léegi. dama gëm ne li ngeen war a njëkk def pour employabilité des jeunes il faut wan ngeen wan nguur gi seen possibilité xam na naka ngeen di wane nguur gi seen possibilité ubbi leen ci consortium Safinatou Camara ubbi leen ay offre de stage ak apprentissage ci GIE yi wax ne que honorable ñun dañ bëggoon nga jàppale ñu ak waa 3FPT ñu labelliser ñu ñuy offrir xale yi nekk suñu quartier ku bëgg jàng métier yooyu métier audiovisuel de base yi techniquement ñu offrir la un stage ci suñu GIE xam nga loolu mën na leen xam na li ma la wax ni bett na leen mais lu mën a nekk la Cheikh walla benn parce que nguur aussi dafa am loo koy bette mais pour jàppale ko parce que mbiru xale yi moo ub seen bopp ba léegi depuis 1960 mbiru xale moo moo ub bopp régime yi nekk presque àddina bi yëpp ensuite il faut que ngeen yéen seen bopp tey li may wax nii jëmale ko ay intelligence artificielle sax sori na mais tey lan moo war a nekk techniquement tête de réseau Pikine tey wala bu yëmbal wala bu Thiès tête de réseau bi yan type d' équipement tey la war a am te équipement yooyu est ce que ñëpp ñëpp am nañ compétence pour utiliser ko il faut que les besoins en formation ngeen génne ko su ngeen ko génnee mën a aussi dem postuler ci agence yi nga xam ne état daf leen teg tey ubbi leen ngeen mën a yokk seen xam il faut ngeen yokk xam-xam bi parce que sinon jamono di leen dab leneen fekk leen ci parce que balaa nga ne naam nekk fa balaa ngaa joxe emploi yow sa bopp dangay xam li ngay def leneen li <coughs> je pense que ci installation maintenance service client ak gestion de vos réseau quatre quatre parties yooyu maanaam installation ni ngeen de installer dem installer benn tête réseau wala dem installer benn réseau ci benn quartier installation bi da ngeen ko war a def spécialité ñi am vraiment expertise ci installation il faut ngeen casser métier yi maintenance bi il faut ñenn ñi ñu capacité leen ci maintenance su équipement yi ngeen di utiliser aussi service client c'est très important yéen chaque mois ni ngeen di defee recouvrement man ci àlluñ laay <laughs> laay coytoo pour xam pour xam moom lan lay daj pour pour mën a jot ci xaalisam waaw <laughs> Cheikh yaa ngi ree xam nga bu baax donc mais mais ni ngeen di recouvrer seen xaalis du noonu baaxul loolu siècle dernier la woon mais tey même recouvrer sa xaalis mais c'est un métier aussi il faut ngeen affiner recouvrement bi il faut ngeen xoolaat ko par exemple su ma nee formation des jeunes offrir des de l'emploi au jeunes loolu yëpp dama ko dama ko dama ko séparer pour ngeen xam ne yéen seen benn métier bi bari na ay ay ay pàcc yoo xam ne mën ngeen ko pàcce noonu ëllëg su ngeen bindee gouvernement bi ne ñun dañ bëggoon former ay xale ci recouvrement ci installation ainsi de suite insi de suite boobaa ngeen di war a ngeen di nekk nag boob ngeen di crédible en terme d'emploi il faut aussi pour ma jeexale foofu ngeen offrir ay programme de soutien à l'entrepreneuriat aujourd'hui je pense que il faut que ngeen bokk ci dynamique entrepreneuriat yéen ay entrepreneur ngeen yéen ku nekk fi taxaw nii ku fi taxawoon jël micro bi wax fi nga jaar fi nga jaar loolu rek leçon de vie la yéen ñëpp ku nekk fii sa jaar-jaar tey soo jëloon micro bi wax ko nit ñi dinañ yéemu parce que lu ne daj ngeen ko lu ne gis ngeen ko walla donc yéen seen seen expérience professionnel ay leçon de vie lañ suñ nekkoon ci dëkku tubaab yu évolué comme ay États-Unis ak yooyu université yi dañ leen di invité ngeen di wax ak xale yi yéen seen jaar-jaar ngeen wax ak xale yi jàngal ko xale yi waaw donc ça c'est très important mais loolu da ngeen ko war a capitalisé pour ngeen nekk des soutiens pour aider les jeunes ñi ñëw ci ginnaaw à entreprendre dans le domaine de l'audiovisuel et dans le domaine de l'audiovisuel balaa nga ne naam nekk fa il faut que ngeen yokk seen compétence ngeen nekk à jour ci xarala yu bees yi fu ñu jëm câble distribution dafay changer directeur ubbil na leen benn buntu defe naa xaw ma moom la xaw ma ma taax saal am na ku ko ci wax gis nga TDS bi TDS bu leen ko xeeb allune TDS parce que mën ngeen def jonction ak TDS même sur le plan technique mën ngeen ne TDS mën ngeen xool sax TDS équipement yu muy utiliser tey yéen ngeen ñëw rajouter ay équipement yu bees pour gën a yokk signal bi yóbbu ko feneen signe convention ak état du Sénégal ñu concéder leen une partie de la diffusion des contenus nationaux loolu mooy le début de la souveraineté il faut que câble yi ngeen participer à la souveraineté audiovisuelle du Sénégal et c'est possible man dama gëm wallaahi dama ko gëm canal a ngi nii nërmeelu mais colonisation des images par les images et l'audiovisuel jeexagul canal mu ngi nërmeelu mais àggagul suuf comme gouvernement bu bees bi et il faut les féliciter parce que ñun. lañ doon xeex di ko dénoncer mujjul antu à ñoom dañu ñëw en moins de trois mois ñu réglé ko bay réclamer tey canal 4 milliards pour moom. et ça c'est important mais loolu benn jéego la li may yóbbante gouvernement bu bees bi directeur faites confiance à ces jeunes Matar Sénéral. Faites confiance à ces jeunes. Honorable, soutenez cette jeunesse-là. Parce que 150 000 personnes du Tchahal, 150 000 personnes, des jeunes du vous plaît, man dama participer ci ñi la joxoon kayit dama xam que dañu war am kayit samay kilifa xamoon ko gëmoon ko mais tey je pense que amul ko gën a Ousseynou c'est un militant de la cause Matar c'est un militant de la cause ñun ñëpp ñoo yem ci xeex bi mais damay ñaan autorité yu bees ngir yàlla nañu gëm te jàppale le câbles distributeurs yi nañu fexe ñu jox leen rapidement rapidement une convention non seulement convention bi mais convention bi dafa am leneen lu ci tegu te loolu aussi lu am solo la mooy c'est de labelliser labelliser liggéeyu ko cablo euh, yi aider leen à que ñu formaliser les métier organiser les métiers def ko de vraies compétences mu mën a nekk réceptacle tey pour man les les cent cinquante mille ils peuvent être multipliés par trois su état bi ne man damay signer convention ak les cablo dama bëgg ngeen formel na sur deux ans wala sur trois ans trois cent mille wala quatre cent mille cinq cent mille jeunes dans vos métiers. C'est possible. Il faut être ambitieux et c'est possible. loolu mooy parce que ñoom seen métier y a de l'employabilité te ñoom wane nañ que c'est possible ñoom wane nañ ne que c'est possible mais ñi ku leen jàppale tuuti vraiment nga nga jox leen de de vrais moyens financiers signer ak ñoom de conventions d'État franchement xale yi. dinañ la won yoon te aujourd'hui suñu si on emploie trois cent mille jeunes ci benn branche soo amoon yeneen deux branches yu ko def je pense que dem ci géej bi dina wàññeeku walla en tout cas ndóol dina wàññeeku Sénégal maa ngi leen